mbokki internautes yi dalee nag jàmm Soham El Wardini daanaka nag écarté nañu ko ci li nga xamante ni nag moom mooy ci euh, candidature am ci mairie bu Ndakaaru euh, loolee nag ginnaaw annulation procès verbal bi nga xamante ni nag moom la daal di nag def daanaka mbir yi mi ngi gën a compliqué wu ci mairie bu Dakar di euh, Soham El Wardini mi nga xamante ni nag boobu moytu du nekk candidate ci bannière bu coalition Yewwi Askan Wi ci Dakar nag ndax commission d'investiture Euh, départemental date déposé nak que euh, euh, li nga xamante mom moy procès verbal bi ci commission nationale d'investiture di réception candidat ci candidature ville bu pour cause mandataire bi di Cheikh Gueye danaka dafa une commission d'investiture pour bu coalition bobu la ngir mu daldi annuler procès verbal bi nga xamante ni amul gain de cause ci benn note boo xamante dañ ko adressé maire bu commune euh, bu jëbal Derklé en guise de réponse membre yu euh, commission boobule nag dañu daal di bañ li nga xam ne mooy remplaçant bu Khalifa Sall mu daal di toog ci mairie bu capitale sénégalaise bi lee ñu indiqué itam ne procès verbal boobule nag daanaka euh, dafa daal di nag valable te amul nag benn cas boo xam ne mën nañ ko annuler ñu considéré loolu ne nag di lettre circulaire bu 23 octobre 2021 défixe ces dernier délai ngir dépôt des candidatures euh, considéré itam participation euh, bu réunion pour la commission départementale pour investiture yi daal di wax ne nag ne commission euh, bi daanaka nag nekkul ci prérogative ngir statuer nag ci irrégularité te nag li muy def mooy di recevoir un dossiers tracer itam et procès verbaux yoo xamante ni moom lañ ko daal di nag sant ba noppi nag jamono ji amul discussion boo xam def ko au niveau du bureau départemental

ki nga xamante ni mooy Barthélémy Dias nag moom la ñu daal di nag euh, jël fu mu toll ni euh, mu war a euh, nag daal di amal li nga xamante ni nag moom mooy mairie bu ndax nag moom sax demeewul ci bañeewu li nga xamante ni nag taxawu Dakar waaye nag demeewu ci bañeewu li nga xamante ni moom mooy yeewi askan waaye dafa demee ci bañeeru nag ki nga xamante ni nag moom mooy taxawu Dakar bu xalifa Sall jàppale ni nag jamono ji euh, moom Barthélémy Dias ñu daal di nag jàpp moom moo daal di nag éligible euh, ci nag euh, Dakar tax na nag daal di koy dérouler sax benn tapis rouge taxawu Dakar def lu ñu mel ci Barthélémy jaas tax na nag ci requête bi nga xam ne annulation bu procès verbal bi nga xamante ni nag bu ñu sukkandikoo ci source aane nag benn réunion de dernière minute la daal di nag tenir pour candidature bu Soham El Wardini. daanaka nag war a daal di nag tenir benn contentieux boo xam ne dañu war a tranché ci diggante ma Soham El ni Barthélémy Dias ñu fàttali ne nag moom dafa déclaré woon ne personne euh, mënu ko daal di nag interdire mu daal di nag candidaté ci mairie bu Dakar ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu daal di nag euh, jëm li nga xam ne mooy dépôt euh, candidature yi mais sortante moom nag dañ ko daal di nag définitivement écarté ci course bi ndax commission départementale d'investiture yi moo daal di rejeté suscité démb requête en annulation ci euh, procès verbal bi nga xamante ni nag moom Samuel Wardini daal dinañ koy nag euh, déposé jàppale ne jamono ji ñuy àndoon nag Barthélémy Dias mom mo daal di nag euh, nekk candidat bu coalition candidat bu coalition taxawu Dakar ci nak élection locale yi né ba sax daal né def conférence de presse ngir daal di koy annoncé daanaka yàgg na waaye gën na koo daal dina confirmé kii di Samuel Wardini moom daanaka dafay xaar ndax nak Euh, procès verbal bi te dafa jàpp ne moom mi mairesse bu Dakar ne dafa bëri loo xam ne ñu ngi ko ciy xeex nag euh, ci boobule candidature am depuis le début na nag kenn nekku ci ginnaaw ku dul ki nga xamante ni mooy Khalifa Sall